biram fay ay tajuk da nga tit bërkaat demb nga gëjoon nga gëjoon publier bërkaat demb bërki demb demb bobu yaa ngi woon di demb a defaraat sa compte bi demb dug nga ji connecté wu ci ak benen numéro euh, dindi dindi numéro euh, IPM bi def fa sa téléphone bu ngi fa connecté won muy 2 tay nga defar compte bi ba nga xamante ne kenn mënatu ci accès muy 3 quatrième bi nga première publication nga naan gars yi daf leen euh, signalé parce que dañ doon jéem dañ doon jéem signaler sama compte bi ken signaler bu sa compte bi de du signalement dañ ko doon jéem récupérer par adresse mail bi ngi ko ubbe won ak numéro téléphone bi nga xamante ni yow sa tour lañ fa identifier muy deuxième chose Sénégal yi déglu leen bax dama leen di wax troisième chose bi mooy ñaari publication bi mu def yépp concernant mbirum compte bi la Anita Diop yàgg nañ ko jiñ ay nit te du publier nag ñooñu la tey ñaari publication yi def benn bi ay fay sama compte bi dañ ko doon si deuxième bi daa dem indi photo Biram Diop daal di kii lañ may wax jiñ nañ ma ko nekk du ma kii kooku mu def noonu photo noonu barke Seydina Mohamed moom Anita Diop moo nekk noonu mooy Biram jóob boobu ñun ñoo la ëpp xel du génie informatique nga informaticien nga ñun ay homme de tenue la ñu la ëpp xel ñoo la tey sa public moo tax tey deux publications la def deux yëpp concernant compte bi si wax mbirum conte bi lay wax ay kii lañ ma giiñ ay conte bi dañ ko doon jéem a signalé mettee les cœurs nangam xam naa ne ku foot ci informatique nga waaye dina li ma la wax rek jàpp nañ la ba pare yow état sénégalais jàpp nañ la yow biram jóob jàpp nañ la bu fekkee ne yow léegi li may wax lu dëgg man porte ma plainte man te maa ngi woolee sénégalais ñu porte plainte biram Diop jël numéro Birame Birame Faye jël numéro téléphone bi bolé ko ak adresse mail bi yobbu ko yobbu len ko cybercriminalité wala ngeen yobbu ko Sonatel ñu identifier len léegi fu mu nekk identification numéro bi c'est moo ci nekk identification numéro téléphone bi jeexee 33 bi feulé te nga xamante ni ñaari numéro ñaari numéro commercial am bi 77 xom ma lan 27 33 33 bobu numéro am la mom birom fay turam mo ci nek te Birame Faye ak Pape Maye Ndour ñu doon ànd Birame Faye foofu musaan gis Pape Maye Ndour gis ko fa te Pape Maye Ndour dem na supprimer lépp luy photo Birame Faye ci kontam Anita Diop jàpp nañ ko jàpp nañ Anita Diop kii Anita Diop jàpp nañ ko boog jàpp nañ ko bu ñu ko jëlee baax na bu ñu ko jëlewut baax na mais Anita Diop mooy Birame fay ma waxaat ko musuma ko jiñ kenn dama doon joxe ay piste naan leen jaar leen ci kii boo leen jaayee ci kii di ngeen xam ay taa jom nangam mais bii dama leen jox pist bu leer ndax dama keen def lu ma dama koy def lu am solo lu ci kenn mës a def laa koy def génne mail bi génne numéro téléphone bi moom ci jour bi mu bu ma ko defee ma capturé ko mu ne dañ doon attaqué kontam mu du mu changé waat numéro téléphone bi changé adresse IP bi loolu yëpp capturé naa leen ko tegal leen ko ci réseaux sociaux pour ngeen seen bët léegi tey mu ñëw tey ak ñaari publication yam ñaar yëpp ci wàllu compte bi lay wax ci wàllu compte bi lay wax ñaar yëpp tàppel la nag amul fit day jéem a nappe di sànniwaate mënul sànni kenn biram fay boobu mooy Anita Diop à bon entendre salaam